nga xam ni mooy blocage administratif parce que société boo xam ni da ngay bénéficier euh, de du soutien financier de la puissance publique dafa am nooy doxalee noo war a doxee te ni nga war a doxee dafa am organe bu koy saytu muy conseil d'administration bi nga xam ni moo lay jox ay orientation di la jox ay délibération loolu yëpp la directrice générale Nafissatou Diouf respecté wu si dara amul benn délibération benn orientation boo xam ni ñu ngi ko koy jox te mu teg tegu si réglementation boo xam ni mu ngi koy respecté donc propre image am lay au moment où ay priorité ay centre émetteur ñu ngi fi euh, mu continuer di jël ay euh, marché yoo xam ne mu ngi tey la gën a mën a di ko jox ay sëram si ñoo xam ne dañ koy sous-traité waat parce que amuñu capacité sax gérer ko donc situation bi à la télédiffusion du Sénégal nu ñu ko xalaatee rek weesu na fa moo tax ñu jóg tey pour tàllal loxo le président de la république ne ko ñun si njabootam la ñu bokk ñun am nañu yéene continuer liggéey bi am nañu yéene sauver mission bi waaye moom moo ñu mën a dimbali pour que ñu mën ko taxawal liggéeyal ko sauver loolu balaa échéance yi nga xam ni mu ngi suñu kanam donc mission boobu mënul nekk blocage technique dafa am parce que atteindre ñu li ñu war a atteindre ci couverture euh, wala taux de pénétration te loolu si moment yi ñu jëm bu ñu amee blocage administratif dolli ci sa blocage technique dinañ am jafe-jafe pour matal liggéey bi nga xam ni ñu ngi ciy jëm ci échéance électorale muy élection présidentielle ak Coupe d'Afrique donc bu ñu àggee foofu blocage am na ñu xam ni le personnel a averti te am nañu yaakaar duñ fa àgg parce que le président gëm nañu dina sauver sauver TD TD Diffusion du Sénégal parce que lim si investir administrativement ak financièrement du ko bàyyi muy muy taxaw di tagga tembe